maa ngi gërëm askanu Morna yëpp ci confiance bi di gërëm borom dëkk yi di gërëm imam yi religieux yi église bi comme musulman yi euh, li ma mën a wax maanaam mooy euh, am nañu problème cow suuf Morna lu yàggul amoon sax ay gendarme yu ñëw tamit ci ñu ngeen masowu coono mais am naa yaakaar ni loolu ñu ngi koy bëgg a fàtte ndax euh, ñu ngi waxtaan wala parce que ñun xam nañu ñun ñëpp ay mbokk lañu euh, donc euh, voilà mais nag daal mën nañ bu ñu waxee naka la demee loolu je pense que mën naa ñëw ci coosaan bi maanaam Morlan ay at angi nii su ma ko waxee sax nit yi am na ñoo xam ne d'accorduñ ci mais loolu moo am ay at angi nii Morlan du taw du taw parce de taw ba mu yegg ci kii bi fu ñu waa fii mbay mi war a ñor mu arrêté ay at a ngi nii ren taw presque tawul presque un mois la taw heureusement peut être état bi indi na fii ay ay xaal xaal yooyu la nit ñi mujjee jël ji ko ñi ci am euh, ñi ko xam tay parce que du waa monaa du ñu ay baykatu xaal loolu moo am peut être am na ñu koy def mais globalement ñi ci ëpp duñu bay xaal donc euh, xaal boobu peut être moo peut être am na ñi ñi ci am mais à part loolu ñeneen ñi amuñu lu ñu góob te loolu at bu jot noonu lay demee xëy na sax su ma neexee su ma nee peut-être Morlan dañuy yiif am ñu ko ñi d'accordul mais man maa nekk meeru Morlan lii nekk Morlan kenn gën mu ko xam xam. yaa xam jafe-jafe askan bi maa ko gën a xam. ndax yow lañ fi teg. man lañ fi teg te ku am jafe-jafe ci man lay ñëw. voilà mën naa la wax ni bés bu yàlla sax li ñuy jënd ci ordonnance ëpp na cinquante cent mille francs nit ñi dañoo sonn. te am na te boo xoolee tamit euh, maanaam ñii ñii kii ñii ñii xam ni peut-être nee sax xiifuñu ñu dañoo am ñii liggéey wala seen doom ñu ngi Italie wala ñu ngi dakaar ñoo indi yéen yónnee xaalis loolu même boo xiiful pour man dignité humaine dafa bëgg ku nekk yor boppam mais pas ñu yor la dignité humaine dafa bëgg ku ci nekk ñu nga yor sa bopp moo tax ñu ni comme léegi maanaam loolu am na Morlan. doomu Morlan un euh, ancien policier inspecteur de police mon moo dem mon moom xaritu Aliou Ciss la bu Diass mu gis fa projet projet bi ay hollandais ñoko yor mu ñëw fi waxtaan ak labbe bi donc euh, foofu la tàmbalee bundu jàngu bi voilà finalement jigéenu Morlan dañu joggé fi 5 h du matin di dem jass pour manam def ay récolte ñu di fay ay 2000 francs par jour ak yooyu ni ni bu ñuy ñëw aussi dañuy guddee ay h heures vous loolu indi parce que loolu bu indi ci école yi parce que bu yow da du matin dem yow kañ ngay sa wala bi a jàng kan moo koy toppatoo parce que jigéen yi ñoo nekk ci kër yi ñoom loolu maintenant euh, inspecteur boobu mu ñëw fii mu ne ma Yves dama projet bi comme mu ngi foofu jigéen ñi sonn nañu ci jëm ni am nañu suuf am ndox nañ ko def fii Morlan effectivement foofu la tàmbale ñu dem ci dëkk yi waxtaan ak dëkk yi parce que dañoo wax ne comme suuf c'est sensible dañoo wax ni nañu dem ci dëkk yi waxtaan ak waa dëkk yi ñu dem waxtaan waxtaan bu yaatu sax six mois un an dañoo waxtaan mais waxtaan boobu fan la mujjee bi ñuy mujjee njaay bopp waxtaan bi mujjee njaay bopp chef de village moo jël kàddu mën ngeen tàmbali projet bi suba ñu dem fulum muy moom ñu dem luxus noonu la encore projet bi bu dee nit yi d'accord nañ ci waa dëkk bi d'accord nañ ci borom tool yi d'accord nañ ci lan moo desoon conseil municipal délibéré mm-hmm. délibération voilà parce que ñun légitimité bi maanaam légitimité maanaam askan bi ànd na si borom tool yi ànd nañ si askan bi ànd na si li ci desoon conseil bi def délibération sous brevet approuvé non donc amul ay jaay man si parce que la preuve que mais on a dit que euh, nit ni après mais comme souf si euh, dañ don ko don ko il faut que projet bi indemniser borom indemniser. du jënd du jënd. du jënd parce que suñu mm-hmm. mais kenn du jaayee hectare hectare souf 500000. 500000 amul. donc mais dañu ne woon comme projet bi day tambali na ngeen jox manam nit euh euh da ngeen jox nit ni manam 500000 francs par hectare. par hectare ndampay ndampay waaw ku ci ku ci ku ci am ku ci ku ci am ay mango. ku ci am limon. ku ci am ay garab. ñu fay la sa garab. parce que loi bi amna loi bi lu mu tëral. effectivement manam non la démé projet bi ñu délibéré ba pare ay nit jóg nekk ñu ni ànduñ si voilà donc ñoo na tàmbalee nit yi ànduñ si nit yi ànduñ si finalement même inspecteur boobu bu ma wax am na def nañu téeméer junniy réunion ak ñooñu pour rien que pour rek am. am entente consensus. Mm-hmm. parce que ñun jàmm lañu bëgg. léegi nag euh, euh, bu ñu ñu après je pense bu njënteel bi euh, bu ñu defee contrat ak projet ba pare. def nañu contrat ak projet bi. Mm-hmm. contrat bi mën nañu jox copie. Mm-hmm. mu ngi fi. ñu def contrat ak projet pare ñun ñun après ci ginnaaw ñoom ñi xam ne d'accord ñu poser ay yeneen problème ñu ne war nañ ci am maanaam borom tool yi comme projet bi dafa prévoir on maanaam dix euros par euh, ton vendue à l'extérieur maanaam tonne bu ne dina jox euh, maanaam commune bi fukki euros six mille cinq cent francs par tonne bu dee dañ ko jaayee biir Sénégal mu jox leen juróomi euros mm-hmm. loolu lañ moo nekk ci contrat bi mais mujjante bi ñoom ñu ne il faut que borom tool yi am ci ñu ni kon xaalis boobu ko dajalee téeméer yi nañ ko jox dañ jox borom tool yi fanweer yi juróom-ñaari yi des ñu investir ko ci biir commune bi te te boobu du sax conseil municipal mais benn comité lañu dañu sam comité boo xam commune bi entreprise bi toog borom tool yi toog euh, maanaam borom dëkk yi toog ñu ni ko après loolu bu paree léegi ñu ko conseil conseil des pour que voilà ñu investir lolu ci biir dëkk bi donc projet bi manam intérêt moral la mais surtout bo gisee ñu indi projet bi du lolu sànq wax na la jafé jafé yu ñu am. ci wal askan bi mais pour pour pour créer pour que manam wa Morna am emploi ci biir gox bi. té projet bi dañu bëgg manam nit ñi tok fi liggéey fi man dama bëgg sax yeen bo leen jógee fi ngeen dem fa parce que projet bi tàmbali na amna ay borom kër yu xamni dañu nekkoon mo Dakar mo nga fan. ñëw ñëpp si nañu ñu ngi liggéey ci projet bi. Mhm. donc ça veut dire que projet bi intérêt kese mo ci nekk. Mhm. Mhm. té tor yoyu ñuy wax mën naa tudd turum amna na ku am na kuy tudd Daouda Mbengue boo nee foofu ci projet da ngeen ko fekk. mom néna bu muy mujjee bay fofu 40 au moins 6 euh, ans la amoon kooku amna tay 50 ans au moins. ce ko tool boobu géej nañu ko bay depuis 44 ans. waaw tool bi nga géy est ce que loolu tool la loolu du tool loolu suuf la rek parce que tool mooy fi ñuy bay di indi meññeef di di wala di récolter loolu mooy tool mais suuf suñu ngi gëj bay depuis 30 ans 40 ans loolu dootul tool dañu wax dëgg rek te kooku wóor na ma ni lu mu am ci lu muy am ak kooku may wax noonu mu ngi liggéey foofu kii naan maa ngi bi may gijee bi may gijee bay tool bi 6 euh, ans la amoon juróom benn at la amoon kooku mu ngi liggéey foofu tey booñ ko laaj dina wax ni man li ma li may am fii actuellement mosuma ko am ci tool bi. ko am ci tool bi. <laughs> loolu quand maanaam maanaam loolu moo nekkoon kii bi. voilà loolu nekk moo indi coow bi bi après nag ñu waxtaan. Mm-hmm. dem nañ waxtaan ba juboo sax ñu ni comme ñi xam ne am nañu d'accord mm-hmm. vraiment ñu seet niñ leen di beree. Mm-hmm. maanaam to bu dee kii bi moo nekk nii maanaam projet bi. ñu nañ leen utal benn koñ. ñu maanaam ñu ber leen foofu. parce que seen tool yi am nañ tool yi ñu ngi ci ñu ngi ci biir. biir projet bi. te loolu bu amee dañuy génne projet bi comme daal. 350 hectares mais comme ñom bëgguñu nañ leen ber fi mhm. comme ça ñom ñu bay seen bo amé 1 hectare fi ñu défal 1 hectare fi watal lañ ba jibor ci dool donc lolu ça veut dire que vraiment on est disposé pour jamm am mhm. maintenant li amone légui nak bi bi li xew manam mhm. dañu togon fi sama bureau bi ñu waxtaan ak ñooñu ñi bañ ak sous préfet ñu ni nañu ñom sax ñuko proposer nañu def remembrement mais remembrement bi ñu ñu tamit comme ñu ngi bay suñuy xaal nañu bàyyi ba xaal bi ñor mais dañoo bàyyi xaal ba yóbbu seen kër ñu commencé mois de novembre décembre bi di jëmbat ay demam di roose te projet bi dafa war a commencé loolu moo indi coow bi maanaam deadline bi jot na jot na maanaam dañoo doon tàmbali projet bi parce que dañu ne woon nañu xaar ba nawet bi pare xaal jeex xaal bi jeex na yóbbu nañu seen xaal mm-hmm. ñoom ñu tàmbali nag di jëmbat ay limon mais bu ñu boo tax bu ma déggee nit mu ni nit ki dafa demoon ci tool limon loolu du tool limon mhm. nit ki dafa nekkoon ni jëmbat limon mhm. dafa nekkoon ni jëmbat limon di roose loolu du tool limon tool limon mooy tool limon tool limon boo xam ni kii na xam ne ñu ngi ñu ngi koy jëmbat loolu du tool limon te loolu yëpp loolu maanaam accident bu xam ni ak incident bu xam ni am na mhm. moo indi coow bi mais je pense que am naa yaakaar ni dinañ ko dépasser. waaw dinañ ko dépasser non yooyu amul jafe-jafe parce que yooyu effectivement lotissement yooyu c' est finalement parce que ñun xam nga suuf dafa jafe. Mhm. suuf jafe-jafe bi maanaam mooy. boo laal ñu ni ñun dañ defoon fii un lotissement officiel. Morlan Morlan de mais coow bu ne am nañ ci. Mhm. finalement c' est les marabouts les un marabout qui a commencé. Mhm. voilà nit ñi commencé di lotissi seen tool yi voilà mais amul benn jafe-jafe. yooyu ma amul benn jafe amaguñu jafe-jafe boobu. vraiment amuñu jafe-jafe parce que lotissement yi def nañ ko. nit yi ñu ngi ñëw di enregistrer ñu ngi dem fay trésor. vraiment. gisuguñu dina fi jafé jafe am na te yaakaar du am jafé jafé mm-hmm. parce que dañ ko tek yépp lu leer du mm-hmm. leer parce que effectivement léeg sax dañuy gis ay papier yu xam ni Euh, dañ ko falsifié mais bu ñëwee fii am nañu ay techniciens yu mën voilà détecté yooyu détecté ko ah, voilà ah, administratif bi voilà donc euh, ñu dañ koy scanner gën a am scanner voilà jafe-jafe mais bu ñëwee fii parce que moo tax ñuy insister toujours hmm. nit ki na jaar fii jël autorisation de de versement au trésor trésor bu ñëwee fii ñu xoolal ko hmm. ndax baax na baaxul hmm. mu toog ko tam versé bu versé tamit ñëw ñu enregistré ko ci registre commune bi donc loolu la ñuy def je pense que loolu foofu côté boobu je pense que amul jafe-jafe pour le en tout cas dégguma jafe-jafe ci loolu. alors très bien à part loolu monsieur le maire tey yaa fi toogal askan wi mais également euh, ci wàllu politique tay bu ñuy xol kilifa nga ba benn bokk yakar est-ce que yang ci ciy gis sa bopp déet waaw wala déet. waaw maa ngi ciy gis sama bopp en tant que maire vraiment damay gërëm président Macky Sall parce que defoon nañu quand même réunion euh, un conseil interministériel conseil ministériel à Thiès décentralisé. Mm-hmm. voilà ci conseil boobu liñ ñu waxoon voilà def nañu ko parce que euh, lan mooy lan lañ programme woon ci conseil commune Morlan forage bu Palu pour état gasco état gas na forage bi beneen bi mooy euh, maanaam euh, centre de formation état mu investir na pour le moment presque 100 millions ci centre de formation bi vraiment côté boobu je pense que maanaam politiquement ou en tant que maire de la commune de Morlan vraiment damay damay wax ni maanaam liñ ma dig liñ ma kii digoon état def na maintenant politiquement maintenant il faut reconnaître que mes vrais opposants à Morlan, c'est les gens de la paix voilà c'est ça la vérité non des vrais opposants à Morna c'est ça la vérité c'est ça la vérité parce que ni euh, Madame boo xoolee ça maanaam euh, affaire tool bi li am boo xoolee les les les meneurs c'est mais c'est les dirigeants de la paix c'est ah, ça bon il est là peut-être hein, je ne sais pas mais c'est ça la vie, je vous dis que maintenant, en fait l'APR. s'oppose à la, existe existe dans existe mhm. voilà Tikao, non je vous dis la coalition Benno mais mais la base parfois il y a des problèmes. mais je pense aussi que même dans les partis ça existe aussi. Mhm. ça il faut même dans les partis. Mhm. ça peut arriver parce qu'on a trouvé ici des tendances par socialistes. c'était c'était ça hein, et les gens se moi je pense que c'est tout ça chacun est libre aussi d'être candidat pour être maire de la commune de Ce C'est pas grave. Mais c'est pour te dire que il y a la coalition Benobokayaka, mais c'est pour dire aussi que euh, nos vrais opposants, c'est les gens de la paix à Morla. C'est ça la vérité. Très bien. Alors, dans le cas du PDU et PUDC ou PSE, est-ce que tu es comme Morlan qui Parce que par rapport à l'électrification, par rapport à l'élection d'eau, potable et autres infrastructures Bon, je vais dire d'abord que dans le cadre du PUDC, euh, le département de Tiaoun, ou bien même la région de Thiès, n'était pas dedans au départ. C'était pris pour les, régions les plus lointaines, plus défavorisées, comme on dit. Kédougou, voilà, Kolda, et tout de suite, des régions les plus lointaines, les plus défavorisées. Donc, mais quand la réunion s'est tenue à. le de lancement s'est tournée à, au centre euh, Abdou Diouf, voilà, là, on a le département de Tiaoun, on a, on, a posé sur la table que nous, on doit faire partie. Parce qu'il y a des coins dans le département de Tiaoun qui sont plus fatigués des coins qui sont acquis ça c'est une vérité. Mhm. Maintenant, c'est comme ça que l'État a peut-être revu la copie pour intégrer, euh, donc, euh, euh, donc la commune de le, département de mhm. Donc, mon temps, ben, je vais hein? donc Lolo, donc le département Taoun, nous nous PUDC par exemple ci walu investissement pour euh, les les matériaux de transformation de transformation pour alléger les tâches des femmes ñun gis nañ suñu bop parce que am nañ ci équipements 11 équipements de transformation pour les femmes ça c'est le PUDC et il y a que y avait que trois communes nañu ci jëdoon commune Morlan commune Pambal ak commune ay ñing mooy Dakar voilà donc il communes yoy dañu dañu qui ci euh, manam ci PUDC ci vois l'équipement féminin tu ci walu le PUDC aussi indi na indi na courant qui ñenti dëkk muy Kër job, Diop muy euh, Kéemay Sambay Karang ak xay ak xay jagal donc installé nañu lampe poto yi ak fil yi mais courant ñogul voilà mais quand même PUDC mo def investissement so di pour di wax ni manam PUDC c'est vrai que manam première phase bi Morlan ak département Tivaouane bokkuñ ci won mais gis nañ ci suñu bopp Morlan commune Morlan mm-hmm. lolu pour wax li am maintenant deuxième phase bi xamuguñu mais de toute façon def nañu suñu suñu kii wàllu piste yi wala yeneen yi ak yeneen yi def nañu suñu demande yi ñu ngi xaar mais deuxième phase comme commencé gul am naa yaakaar ni le président Macky Sall dem na keroog Paris bon il a eu beaucoup de am na am na am na ci ndam parce que am na plus de sept mille milliards am na yaakaar ni loolu bu tàmbali ñëw ak dina donc indi deuxième phase bi maanaam ñu mën ci am lu bari. très bien alors monsieur le maire ci wàllu modernisation des cités religieuses.

pour maanaam defaraat maanaam defar kii bi sanctuaire bi loolu dégg naa ko mais comme man nekkuma ci biir donc dama ko dégg euh, dégg naa aussi ni état bi promettre na aussi defaraat jàngu bi jàngu bi am na ans dañ ko defaraat donc mais le vrai problème peut-être pour le moment actuellement peut-être mooy euh, mosquée d'ar Alpha daal ci boppam Daaru Alpha ci boppam je pense que d'ar Alpha mérite na quand même aujourd'hui état bi dugal ko ci site religieuse yi mérite na ko parce que si euh, ñuy tudd quand même euh, sëriñ yi a yàgg fii yi gën a Alpha ci la bokk. Mhm. Alpha ci parce que liggéeyal na te moom mu ngi presque jamono sëriñ Babacar mhm. ku mhm. donc du je pense que nous na tey Alpha vraiment euh, infrastructure Si on ba tey ba tey tey tey jii réflexion Serigne bi defar na defar na kiyam yi def na plan yi ak devis yi pour mon état defaru ñew j'app. mais état bi tamit war na jàppale daru Alpha pour mu am au moins bibliothèque pour que voilà des, bibliothèques bibliothèque islamique ou un centre islamique war na fa mën am je pense que yoy bu amé centre islamique buñ ko pour vous ñu am euh, ñu defaraat manam ki bi mosquée bi amna yaakar ni peut-être di ci des peut-être mëna ñu defal benn salle bu savoir peut-être pour def seen qui. parce que chaque année cérémonie officielle yi voilà dañuy louer ay bâche dafa compliqué dafa compliqué cest ça dire que état voilà aujourd'hui par exemple on hier on était en CDD CDD mhm. pour euh, Gamou Gamou Dar Alpha mais vous on dit Gamou, pour savoir, ne dañuy rey au moins lu mat 50 60 soixante bër mhm. du Gamou bu mhm. ndaw du Gamou ndaw du Gamou ndaw je pense que état bi warna na bon euh, amna yakarne en tout cas boudé dee mu ngi xool église bi na gën a góorgóorlu na gën a góorgóorlu loolu ñu maanaam ñu matérialiser ko voilà donc euh, du ay wax rek ay chiffres mhm. parce que quand même je sais que au niveau de l'église église euh, promettre nañ euh, dañuy defar église bi déjà ñun ren nañoo doon def suñu 125 ans yi ci wàllu église bi mais defuñu ko mais je pense que am naa yaakaar ni en tout cas état bi dina réagir j'ai confiance à mon état dina réagir pour église bi ñu defaraat ko sanctuaire bi mais aussi Daara Alpha

pour mu jafe-jafe ndox bi Mont la parce que am nañ ko. Euh, am nañ ko mais je pense que su ma répondre sa question bi euh, Pape d' abord après ma wax ci yeneen ni donc euh, effectivement Colobane am na jafe-jafe ndox mais SDE mu ngi changé tuyau bi problème tuyau la ñu amoon tuyau bi dafa màgget te tuyau bi dafa sori ci suuf un un mètre cinq cinquante donc bu tojee pour nga dindi ko day jafe pour day jafe mais ñoom je pense que projet boobu war la tàmbali ou bien bu léegi mu tàmbali dañuy changer tuyau bi tuyau bi dafa tuuti woon xóot màgget loolu moo nekkoon jafe-jafe Colobane je ne pas bi ngeen ñëw certainement gis ngeen ni ñu ngi parce que defoon nañ demande état bi pour que ndox mi mu jógee Colobane mais mu ñëw ba ca Colobane ngeen mooy ci tali bi quoi voilà donc loolu je pense que ñu ngi gas maanaam tuyau yi pour que ñooñu aussi am ndox donc euh, boo xoolee fii am nañu dëkk yi xam ne am na ñun am nañu jafe-jafe ndox Mont Rolland te waruñoon am jafe-jafe ndox pour man parce que nous comprendre quand même, réseau Pout Nord, réseau Pout Nord, c'est le réseau de la SDE ou de la SONES, SDE, réseau Pout Nord. Mais il y a au moins 13 forages et les 8 sont dans la commune de Morla Voilà, mais, voilà, mais c'est pour alimenter Dakar en eau. Voilà, je pense qu'il faut établir l'État et je pense que état nous nous faire effort parce que quand même faham euh, faut un am na jafe Samba Karang am na jafe ndox même dëkk bu ñu nekk nii Tiwin Tàngoor am na jafe-jafe ndox donc am na dëkk yi xam ne am nañu jafe-jafe ndox mais pour pour le PAM PAMCUI 1 ak PAM PAMCUI 2 donc waa SONES S2 en tout cas ñu ngi ñuy jàppale pour que nu mu gën a gaawee ñu am ndox du yàgg ñu am ndox mais Tiwin Tàngoor bon je pense que ñu ngi ci wut solution pour que vraiment ñun daal am nañu def def nañu benn étude ci wàllu ndox à Morlan étude bu xam ni SONES moo ko def étude boobu nekk na presque 1 milliard d'ici 20 ans maanaam d'ici ñaar fukki at ci kanam lan yan investissement doon def pour que jafe-jafe ndox bañ a am morom donc donc budget dañ koy tàmbali budget 2019 lu mu néew ne war nañu def 50 millions ci wàllu ndox pour que vraiment parce que il faut anticiper bul xaar ba jafe-jafe ndox am parce que population comme day yokku il faut toujours augmenter infrastructure yi di yaatal ndox mi pour que maanaam koñ-koñ yi yëpp am ndox je pense que loolu voilà très bien monsieur le maire euh, bon li may ma peut-être euh, yéné ñep atum jam atum 2019 à atum jam pour ñep mais surtout Sénégal parce que dañuy dem élection élections élection présidentielle amna élection locale au mois de décembre vraiment ñu ñaanal Sénégal jam voilà que vraiment élection yi ñu def ko ak fair play voilà et puis voilà tout gagne, gagner mu je pense que lolu euh naa tëjee ci lolu di ñaanal ñëpp atum jàmm atum 2019 atum jàmm atum naataange ñaanal yéen tamit seen euh, Thiès Info gën a jëm kanam comme yéen seen rôle mooy euh, maanaam informé ñu ngeen di jaajëfal.